la la la la la

ci yëkkati kàddu mosuñoo nangoo yëkkati kàddu ci sa ron ba ci ron baay baaba saa su fi ñëwaan du nangoo jël kàddu ndax man xàmmeewu ma baaba ak yow xàmmeewu ma baaba ak yaay sa mën na seede loolu bañ dalee def jotaay ba léegi kenn ñëw fekk jotaay fas mbaaw jël waaye ndigal moo ma tey kaddu gi nak nag ko jëlu jëlu jëlu dana jaaxal ñu bari fokk ma wax tay wax ci yépp yépp yépp benn baat la rek luñ koy yaatal yaatal it xam leen ne benn baat la rek mooy jërëjëf yaay. buñ ko waxu waxu waxul waxul waxul koreewuñu maanduwuñu. 2003 lañ jógee Saalum ñëw Dakar tefes Yaraax gi dama daan dem ba ci tefes gi ma summeeku dugg ci biir ndox mi di for jënd jaay jógee fa dem Sandaga di wër ci mbedd yi di jaay fu ne dugg naa fa di ambulant loolu rek loolu rek ci laa nekkoon ba yàlla wane la ma ay mbokki taalibe ma ñëw foog ne dal naa ci at ba at lay ñëw fajaa te gàmmu ga guddi ba guddi lay dugg ci tànt bi ñu loolu laa foogoon mooy gàmmu Baye loolu lañ ma xamaloon at ba at la ñuy ñëw ci tànt bi la ñuy dugg bu tasee ñu ñibbi ba yàlla dimbali ma ma teewee benn jotaay dégg ñuy tëral programme mu mu mel ni nag man moon Sénégal waaye ba ñu yàlla dimbalee ba ñu yàlla dimbalee ñu xam ne bunti yaay la nangu ko ma ñëw ne kees gi li ci nekk ren kenn du ko togg di ko ca tànt ba la jëm ci la njëkkee jënd bëri ko yooyu nga gis indi ko jox yaay ne ñun dañoo répondre dajale xaalis làq ci benn rub di ceeb di lekk ba guddi nga sañ sa toog ci tànt bi bàyyi waxtaanal la nga xam-xam jëriñ jëriñ kan mu mu métti woon lool nag ma dégg ci lu ne police sax taaliba yóbbu na ko fii ma dund fi lu nekk waaye bañ tàmbalee wax jërëjëf yaay ak léegi dafa mel ni ay buur lañ comme ay buur lañ mbir yi yomb lool buñ mu yomb luñ dugg mu sotti damay nettali daara bi ma jotee fii keroog baay bi may ñëw ne dama bëgg ubbi école tuddee ko yaay kay booba sama soxna si mooy wër di jaay naanaa dama jox ay dépense ñaar dërëm nekkul ci sama poche. mu ñëw ci borom kër gi ne ko man de ñoom dañ ko ndax seen doom laa tarbee mu ngi Cameroun ñu koy Muxtaar Jaw seen mag kër Fuuta yóbbu seen yaay foofu ak njaboot yëpp ñu war a bàyyi kër gi fii ko dénk Muxtaar seen sëriñ yaayam yow la Muxtaar de fi nga jaar ak moom ñun gis nañu comme wóolu nañ la si Muxtaar wóolu nañ la si suñu kër gi di ko luye di ko defar 2012 ba téye ko ma ko bëggee daal leen woon man de dama bëgg def école soxla kër gi mun ma génn leen locataire yi ma ne ko locataire yi de boo joxee délai da nga def ñetti weer yoo xam ne duñ la fay que dana métti ci yéen mënu ma amul solo nu ñëpp génn ñu toog ñetti weer defuñ dara ba ñëpp génn ma ne ko ah ñëpp génn nañu léegi nag mënu ma tàmbalil ma ne ko aw ma avance mënu ma tàmbalil ma ne ko ah mënu ma waa teelul avance ma dem fii ci télé bi am na kenkaayri bu nekk ñu ne kenkaayri Abdou Aziz na ko góor gu baax ma ne ma ne ko man de dañ ma jox kër ma bëgg ko def école bëgg peinture li muy àndal te yoruma xaalis mun ma demal ci kële mu jox la li nga bëgg ci peinture ma yenu siwo yi ñëw teg aw ma ko ko peinture xañ na ki may wax mu ci mbooloo bi ñu koy wax Mouhamed ma xam naar la peintre la gis naa ko fi sànq ma ne ko Mouhamed man ne dama ay siwo peinture bëgg a peinture fii te yoruma sax xaalis mu ne ma vingt mille nga may fay heure boo ko amee moo ñëw peinture ko na ma ki may dimbale jox ko deux mille xam nga kon projet bi taxaw na te dërëm génn ko jërëjëf yaayu bi ñu peinturé ba war a dessiné xaalis bi jeex na xaalis bi xaalis gi te war nañoo fay at ki dessiné bunt bi ba mu niru ne ku fi romb xam ne école a a ah, ah, sama goro nag ku baax la woo ma ne ma dégg naa yaa ngi yëngatu am naa fa fukki junne yu ma yàkkamte wu téye ko tàmbalee ma jël tàmbalee noonu daal bàyyi leen tàmbalee ba fu nekk nii fali alhamdulilah rabbil alamin année bi ñu am nañ jardin ba CM2 am candidat mu am na it amaan nañ ñaari candidat kii def option française kii def option franco-arabe parce que fii ñaari diplôme yëpp dañ fiy génne soo bëggee français kese dañ lay inscrit bind la nga dem defi CFEE bi certificat d'affaires d'études élémentaires boo xam ne français rek la. loo jàng jàng alxuraan bu nekkee taxawal loolu wéyal français bi te yaa ngi doon jàng français yéenay bokk benn table te jaar nañ fa jàll. am koo xam ne moom day tànn wéyal franco arabe bi kooku it yóbbu nañ ko fi mu ko war a wéyalee ñoom itam jàll nañ. kon gis nañ sa ñaan ndongo yi jàngee fii seen yaay yi maa ngi leen di wax am ngeen chance. yéen ñi fi indi seen doom am ngeen chance am ngeen ne ñun ñooy jàngale waaye am na koo xam ne ku mu waxul at doo at mi te moom mii la boo tax ñi fi jàng faw danañ at mi ci barke yaa ismul aarifiina kon nag yaay booy tey mbooloo mii li ñuy tàmbali jëriñu yaay matuñ juróom ñëpp dañ ñoo boddi boot nañu Direi, Iago. Boa! ci Seydou Baye bii di xëy ñu yaatu de xaare fu bilaay boo waxul jërëjëfee yaay